mbokk yi compagnie Sénégal c 3 moo ñëwaat ak yéen ci jongante bi mu baaxoo amal at mu nekk tuddee ko yaatal mbindum alxuraan ren di ñeenteel bi édition ku ci bëgg a bokk da ngay bind lu tollu xët ci alxuraan bind sa tur sa adresse ak sa numéro téléphone yóbbu ko ci butiku c 3 bi la gën a jege ci Sénégal wala fépp foo xam ne raabita bi wala fédération bi ëmb jàngalekatu alxuraan yi ci Sénégal am na fa dépôt candidature yi di jagleel ko région yi di maatam Tambacounda Ziguinchor Kolda Sédhiou ak Kédougou ngir gën a suqali mbind mi ci gox yooyu le ñett ñi jeetu ci concours national bi dinañu am neexal yu am solo yu ñu leen jagleel premier bi dina am 6 millions deuxième bi 5 millions 500 troisième bi 5 millions kuréel bi saytu concours bi mu ngi fàttali candidat yépp ne ku ci nekk benn dépo la war a def ak foo ko mën di defee ci biir réew mi kayit wi ngay déposé it yaa ko war a bindal sa bopp ku ci bëgg yeneen i leeral wooteel 76 751 43 42 wala 70 736 36 36. sëriñ Abibu ñu ñëw ci laaj bu mujj bi muy sëriñ Saaliw ak xasida yi ndax sëriñ dafa am nu mu doon dunde xasida yi dafa am it fu ko xasida yi doon doon doon doon yóbbu te nu gis ne léegi jàngkatu xasida yi bari na te it am ci ñoo xam ne sax ñu ngi koy teg ci yoon waaye am ci ñoo xam ne nii dañ ko jàppe comme folklore ñu ngi ci xasida yi ci ngénte yi ñu ngi ci xasida yi ci tuur yi ñu ngi ci xasida yi ci puukare yi te xasida yi doon loo xam ne nii lu nu war a fonk la ndax moo ñu jëriñ tey te moo ñu jëriñ ëllëg sëñ Saali wax xasida yi waaw Serigne Saliou ak xasida mooy Serigne Saliou Ka ak rek ni mu fonki woon alquran teg ko ca kaw noonu la fonke woon xasida yi ngir xam fi xasida yi toll woon borom Serigne Touba liggéeyam bépp ci xasida yi la ko def xay liggéeyam yëpp lim liggéeyal yàlla ba am ci ngërëm lim ci am lim liggéeyal yonent bi lim liggéeyal jullit ni lim liggéeyal islam lépp mu ngi ci biir xasida yi looloo taxawoon nag moom mu fonko xasida yi bëgg ko te sëriñ bi daf ko daan ah, daf ko daan digle mhm. sëriñ bi dafa daan digle ñuy jàng xasida ndax jàng xasida dafa wax ne jàng xasida moo yéega ab murit mhm. xasida moo yéega ab ba tax na mm, mas naa koo mu wax ni jàng alquran ba man ko sàggan ba fàtte ko de sunu borom dële na ci loo xam ne neexut te xasida yii nag ginnaaw alquran moo ci topp kon képp ku ci mokkal xasida yi na nga ko na nga fexe ba ma bu ko fàtte ndax fàtte xasida kat moo ko fàtte alquran ñooyam kon loo ci mokk lu mu néew néew fexeel ba garde ko li it mooy nga seetti la nga mën a sellal man koo garde nga yem ca di ko ca yemal te itam baax na ci itam nag euh, di saytu mbind mi ak di saytu njàng mi ndax mbindiin wi wutum xaalis mi tax na ba yin wi baaxatul da nga gis ku bindu xasida mhm. boo ko too boo ko jàngee xët wu nekk fukki yàq dana ca ne mhm. te loolu dañ ko toppul rek te loolu dara jëru ko sëriñ bi daan wax ni mhm. euh, euh, xasida yi ni ñuy saytoo alxuraan noonu lañ ko war a saytoo tëkkalewu leen ndax alxuraan waxi sunu borooma waaye nag sunu boroom mit dafa màggal xasida yi màggal goo xam ni ndax Sëriñ Tuubaa daf ni faqat xasaayid yi xasaayid al kiraam ku baax ku ma sa bind li ma bind féete kaw sa te it wax na ni sama wax moo gënal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lurul alxuraan ak addis mhm. kon bu alxuraan wéyee addis yu tege tege mhm. alxuraan a ci topp kon ni ñu leen fonke noonu la ñu war a fonke alxuraan mhm. noonu nag la ko sëriñ Saliou jàppe loo taxoon dongo yi dafa sàkkoon aw sas woo xam ne dafa wax ne ne ko ñëpp di mokkal mm-hmm. di ko jàng ñu di ko jàng ci xasida yi ci tërbiya gi la bokkoon mm-hmm. bu ñu ma saan xëy liggéeyi gonti jàng bu guddee dañuy yëkkati xasida yi ba nit ñi neraw mm-hmm. nee na loolu ci xasida day ci ci ci tërbiya gi la bokk sëriñ bi moo ko daan def wax na ne daaj bii nga xam ne mooy daaj bii xew nga xam ne jësbul xulab ak mooy ba mu xadimaat nee na sëriñ bi ci boppam moo ko yëkkatil boppam moo ci ci la ko man ña jàngee sëriñ bi ci boppam moo takkoon ndigam di ko yëkkatil boppam am na yoon woo xam ne nee ñu dafa dégg yakuni qad xaama xayru lbashari wattaxiyaari zumari wattalxiyaari zumari ila dawi takaburi kal badri wasta anjumi mu ni bërit fab kaala gi takk ci ndigg ne ko wax loolu man de xamu woon ne am na ko ne sa kanam sama kanam ñu ne ko loolu kat yaa ko wax ma ma yaakaaroon naa ko de daal di daal di daal di tekki nga xam ni mhm. xasida da daan liggéeyali borom ba sunu borom eggale ci ko ci foo xam ni musu faa eggale kenn mhm. wax na ni sama borom eggale ne ma foo xam ni musu faa eggale kenn li ko def mooy dama koo liggéey liggéey boo xam ne kenn mosu koo liggéeyal hmm. te it képp koo xam ni jàpp nga ne yaa ngi liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu mel ne sama liggéey bii hmm. sa sa sa njorto nax na la te hmm. yaa ngi ci njuumte amul ku yàlla bind kuy liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu mel ne li ma koy liggéeyal loolu lépp ay bayit la damay tënk rek kon nag xasida yi ni ñu war a fonke alquran ne lañ war a fonk xasida yi boo jàngee alquran ba noppi nga jàng xasida murit bu ne nag am na ko murit bi ne am nga sasu alquran am nga sasu xasida boo jàngee sa sasu alquran ba noppi fop sa xasi sa su xasida jàng ko loolu ci yoon wi la sëriñ bi daf ko daan digle sëriñ Saliou Mbacké daf ko daan digle moom ci boppam ñëpp xam nañu xam nañu sëriñ beeg ba fàttali bis rek nooru daaree ni xam nañ ko moom ba saa su njàngalee eggalee njàngum alxuraanam faf dina nooru daaree ni ba jàng ko am na nit ñu bari it ñoo xam ne yëg naa ne wax na leen ni dee leen ma ko jàngal ndax amatuma jot gi waaye seenum jàng sëñ Muntaxa Cheikh Saliou moo ma ne woon dee ma ko jàngal ma di ko jàng bi ci mujj ci bis bu set ma jàngal ko ko. bi ma ko gisatul. te xat xat yi bari. aji mu junee ma jàngal ko ko. boo koy jàng du ma ci fas wax na ko ci télé yi nee na waxoon na ma ne dama ko jàng ndax sax jàng ko mooy sama jàng kon xasida yi ni sëriñ bi fonk woon ginnaaw bu alxuraan wi xasida yi lépp nag liggéeyal yàlla liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak nag dimbale nit ñi. jërëjëf euh, sëñ Abibou bu ko bu ko defee nag kon li mhm. koy li koy daaneel. Mhm. mooy li sëriñ son bi wax sànq. ñu jéem a xeñtu tànki sëriñ bi jéem a xam li mu bëggoon tege ca. Mhm. te bàyyi wax ju bari ci. wax ju bari ci ji nga xam ni amul du tegewul fenn. nga xam ni ñu koy wax doo xam lu tax ñu di ko wax. ndax moom bu fekkente ne da ngaa bëgg loo am loolu mënu laa may dara kenn ku ne la nga am yàlla la koy jox boo fenee du tax nga am loo wërta am boo waxee dëgg it du tax nga ñàkk la nga waroon am kenn ku ne la ngay am yàlla la koy jox te nan la ko jox bu ko defee nag kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam maa ngi koy wax sëñ Abdou Ndiaye léegi ne ko yonent bi sallallahu alayhi woon man kataba alayya mutaammidan falyatabawa maqaadahu min annaar ku ma fenal te tey ko séentul sab jotaay ca sawar te Serigne Touba fi nekkoon yonent bi kilifa yi ñoo fi nekkal yonent bi kon képp ku waxal Serigne bi loo xam ne waxu ko mm-hmm. na la bir ne yaa ngi fenal yonent bi mm-hmm. te sa tànk nga teg ci yoonu sawara mm-hmm.